ñoom ñi face to face Balla Gaye 2 Boy Niang 2 le 10 octobre théâtre national Daniel Sorano mooy dalal mbëri Gaston production ne dinaa leen boole ci benn bër Balla Gaye numéro 2 jàkkaarloo ak Boy Niang mi ko newoon Balla ñun doo suñu idole Balla ni ko Boy ñaa say entraîneur sax mun naa leen jàngal bëri waa Gaston production nee nañu duñu yem ci Balla Gaye ak Boy ñaa kese ndax combat bi war a am la 5 mars ci diggante Sa Thiès mi nga xamante ne nii bërëtam xajul ci nit moom la Gaston Mbengue daal di jël boole ko ak nga xamante ne ni bi mu duggee ba léegi musta dégg mu ñëw beneen combat bi nga xamante ne nii moo war a am le 14 janvier diggante Sokh ak Marde derby Pikine ak waaye dafay dekkiwaat foofu le 14 mai itamit lamb ji nga xamante ne nii moo war a dox ci diggante Franc ak forsa dinañ leen woo ñoom ñaar lundi 10 octobre ca théâtre national Daniel Sorano kaddu dem kaddu dikk mbokk yi face to face bi nag sur invitation ku ci amul sa invitation mën nga koo xaar ndax en direct ngeen koy am ci lutte tv point com ak Gaston Production asalaamaaleykum ñu ngi fi nag Kër Aziz vraiment fekk fi Balla Gaye champion temps yi passé nag dama ko waxoon ne ko buri buri na soow mi mais gis que naa ne soow mi bara ko <laughs> léegi attaaya lay naan <laughs> Balla Gaye dina léegi bay na soow léegi attaaya lay naan yeeg diir bala maa lay maa ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay sama vidéo boobu donc seetaan ne nga ma bàyyi soow léegi bàyyi naa soow léegi ataaya laay naan naan tee waaw Madour Madour Madour gis la ma yow la waxoon bala ngay léegi bay na mais nag vraiment état bii ma gis ci yow macha allah waaw waaw mais xam nga sport moom ñëpp xam na sportif que boo amee combat combat boo nekk noo koy préparé te li am importance mooy pour bëggal suñu supporter aussi bañ ku ñu yàpp aussi tamit bañ ku yàpp suñu supporter ba tax na daal vraiment euh, loolu kese la li li ñu war daal ñoo ngi koy def ñoo ngi koy def te ñu ngi ciy nekk tout le temps te yàlla nañ ci yàlla may ndam te incha allahu suñu borom nañ ci may ndam am nañ ci xel mu dal baax a baax. man nag vraiment wax dëggu si yàlla. mbir yëpp samay xel lañ mais moom moom da cee raw sa combat bii ak bi ci topp yëpp yal na ci yal na ci am ndam yow laa faral na ko Lamine Madoune Balla Gaye laa faral mook mook Boy Niang moo yow laa faral mook Ahmed Sène yow laa faral ñaari yëpp di nga daan mais nag bés booy bëriwaat ak Tapha Tine dafa lay faral man maay monument Refane moom man moom Tapha moom boo boo ko laalati ba ko fi nag bu fi laalati Tapha laala ku ne fi Tapha mais bu Pikine moom Pikine moom boo neexee lambaa jël defal loo neex daana koo ne foofa <laughs> mais yow mais mais mais waa Pikine xanaa yow lu ñu def non yow da nga sama xarit waaw loolu yàlla da sama xarit ñu bay nag yow danoo yàgg ba pare ñu bokk Aziz wax naa ko Aziz booy bëre barke sëñ Bamba saa yoo bi nga daanee giri sept la mu woo téléphone sept heures du matin la ma woo xam loolu dafa neex man su ma sañoon chaque su nga bëre daan ndax bu xëyee woo ma saa yoo daanee mu woo ma bi ñu la daanee bi nga ba ma daanee woowu ma mais bi nga daanee giri sept la ma woo ne ma loo gis tey bii di ñëw la premier yaay daan. incha allah yi mu nekkee moom macha allah Balla Gaye mi ma gis boo ñaam na problème. ah mais yàlla baax na Aziz moom comme ni nga ko waxee rek comme yàlla dafa dogal ñu fekk ci weeru gàmm gi ak weeru bu tedd bi ñu gis li nga xam moo ngi koy def chaque année que i ñoo ngi koy ñaanoon gudd fan ak wér gu yaram ak wér bu baax a baax ak njabootam ak famille ak mbooloo mu jullit ñi fi ñëw ren yàlla nañ ko fekkee déwén ak mbooloo mu jullit. que ñoo ngi koy ñaanal suñu mag la suñu kilifa la ba na daal guddi gi nga xamante ne terale na ko jaam yi ak mhm. kilifa diine kilifa aada yi yàlla na ko suñu borom terale loolu yàlla na ci gis boppam yàlla bu mu ci mus a gis boppam ci li muy def vraiment donc ñëpp kontaan nañu am nañ ci satisfaire ñi ñu dëkk géejawaay ñi ñu nekk ay banlieusards ñi ñu nekk ñoo xamante ne ay bañkat lañu ak exemple boo xamante ne nit dina ko gis di def lu baax vraiment loolu daal Aziz mention spéciale waaw. est-ce que am na Lamine. Balla Gaye Aziz ba ba bëgg na ko fay jox. waaw bëgg nañu ko <laughs> <laughs> boobu mooy premier combat am. boobu mais nag Aziz da ko yëgëb gëm. ne ma non Mbaye Diouf boobu boobu maa ci mu ne ma laa jox ma ne ko Aziz kuy Balla mu ne ma noonu doomu Double Less yaa ko mën nekk damay nax boobu. <laughs> xam nga ndeysaan nit ku yàgg sonn ci yow dafa métti. te ku yàgg sonn ci man la yow xam nga loolu. xam naa loolu waaw nga ca bu njëkk ba El Malick xam nga loolu yàgg na ah <laughs> loolu yàgg na allah ba tax daal ñoo ngi koy ñaanal jàmm. Eh, combat yi ñu jublu si tamit ñoo ngi koy préparé nu mu waree. donc vraiment ak suñuy mbokk ak suñuy am di jàmm. ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam waaw. Balla Gaye 2 ah Boy Niang dama gis bi ngay break moom bi ngay gë break Gris Bordeaux nga op pourquoi ngay break Boy Niang nga wàññeeku. waaw combat bu nekk ak noo koy waajalee xam nga ñun dañu nekk ci ay loxo yoo xamante ne dañu ci teg ñu ngi ci gii salle de musculation bi ñu ngi ci yeneen euh, moniteur aussi tamit ci yeneen façon entraînement ñu ngi ci école de lutte Balla tamit tout le temps ñu ngi ci liggéey. comme séquence yu ñu jëm xëy na entraînement bu météo si tamit day laaj xëy na poids bi wàññeeku mais loolu la rek dañ jàpp ne bu ñu waree bëre dañu war a bëre bu ñu waree tey retation ñu song ñu ñu mën a bëre ñu mën a mobile daal moom suñu yaram. man wane ne wane ne toujours sportif rek. que ni Balla Gaye lépp lu mu bëgg a toll dina ko toll. lépp lu mu bëgg a mel dina ko mel mais loolu jom ak fulla ak ñeme entraînement moo koy def du leneen donc ñun ay xale lañ te buñ ko waxee dinañ ñu gëm. mais neexut a gëm ab dinañ ko gën a gëm nag incha allah mais li liggéey dong la du dara. non yaa ngi état waaw liggéey boo ñaan ñoon na ma waaye Ahmed Sène moom moom a gën a ñor kooku moom billaay non du trois cinq moom attaaya sa ñaar di see baax pourquoi ko nangu deux un la foofu moom s len ko ba yàlla baax na sa loolu naa magul dat yaa magul dat yow yow na la bala xaji de xaj dama la nga xaj nag xaj <laughs> pare bala li ma jaaxal moom dafa xam booy ñaaw mais boo toogee di wax ak moom xam ko mën de bila non la boo toogee di waxtaan ak moom ci combat bi nga ne combat bi jëlewu ko pression mais nag Balla Gaye aussi euh, Lamine man bi bi ñu ma ko bëggee jox ak léegi 2005. deux mille vingt deux ñu bëgg ne Balla jeexal na Balla Gaye paa la bu jeexalee ñépp jeexal nañu non dinañ waxtaan dëgg Balla Gaye bu jeexalee. Lac de Guiers sama xarit la nag tooñu ma ko jeexal na lat maa ko jëkk a bëre fekk naa ko mbappatu géejawaay boobu maa ngi bëre moom mu ngi daan ñëpp ñuul ma ñëw gay na ne ma am na doomu dubal bu tee mbapat bi nan la ko jox ma gis ko mu sumeeku di daan ma ne kii moom kii moom du ma ko jël moom bi muy bëree mbapat boobu tafaatin bi mu koy fekk Assane Diouf ñuy bëre 45 minutes boobu ñoom ñoo ma mën fuuf mais boobu maa la gën a star. waaw ah, boobu boobu champion nga boobu boobu wuli lañ gën a xam <laughs> vraiment César yaa gën a nag. mais nag ku baax la. barke Seydina Mohamed nit ku baax la bu boobaa kenn mërees sama mbéra. yal na la yàlla may ndam ne bu mag ko parce que nag Lamine li ma sax ak Balla soxuma ko ak booy Niang wax dëgg na ma baal soxuma ko ak Balla Gaye ah Amel Sène man daal benn eh, ah Balla mosuma ko woo tooñ mu woo ma di kaas ah non am na ñu may woo di kaas mais moom moom wax naa ko xol bi moo rafet du rak du maanaam boo ko tooñee bu la gisee day kaf ak yow reetaan ak yow sportif la barki suñ baa Mbakke mosuma koo tooñ mu naqari ko mosuma koo tooñ mu lu ma ko wax bu même bu ma gisee damay nuyu kaf man reetaan ak man loolu mooy sportif ñu dañuy kaf dañuy neexal mais am na ñoo xam ne boo leen wooyee ñu kaas moo tax léegi ya ma jàpp sama njàmbur. àdduna nag kaa àdduna cest à nit lu mu la wax. lii dina la tooñ xam ne kii sawaay da lay tooñ léeg nit wax la benn affaire mu nekk dëgg maanaam dafa am positif ak négatif mais pour man lépp lu la waaye di wax war nga ci mun a jëlee leçon ba mun see xool li nga xamante ne lu baax la ëllëg nga def ko àdduna moo critique ñoo ànd moo tax doomu aadama wala nga nekk nit koo xamante ne nit ñi dañ la xam lépp lu la waay di wax jëlal nga encaissé bul ko bul dégg di wax na ne li la wax noonu seetaanal nga xool luy njëriñ li nga téye li nga xamante amul njëriñ nga bàyyi mu dem loolu mooy àdduna même bira seet nag dinaa ko ay wax ak moom na bay tagul bi day ñëw moom mënul tax fii bay amoon na ku fi indi lu weex tal ba waxuñu kii andi kaggulam ñuy wax nañ ba yooyu kaggul bi la ci wax daa war a ñëw dina ñëw de ah, non non di nga war kaggul ñëw dafa am wax yoo xamante sax man toujours dama ciy wax wax boo xamante ne lu positif laay wax gis nga doomu aadama bi bu nekk bul jël exemple ci ay xale yu ndaw naan xale yi bu ñu seetaanee dañuy ragal làmb lépp ragallu bu dee loolu la rek làmb lépp ragallu donc tey bu fekkee da nga simeeku ba ngem wala loolu ragallu mais mais mais mais dafa am yoo xamante ne télé yi ñuy seetaan sa bala. waaw yow Palimsa Palimsa yaa ngi fàttali Palimsa. xaw ma Palimsa lan la. Palimsa bu 5 jot xale yi dañ koy bàyyi li ñu daan def dem foowee ko bu ñu génnee jël ay bant sàkket di ko defar di def Palimsa di ko foowee. ru ragal lu amu fi làmb lañ ko defar moo gën yàq yi. parce que sëñ Bamba bi sax ñu bëri bu su bala di bëree dañu koy xaar. mais day ñëw. kagul day ñëw. na ñëw de waaw ah, waaw. na ñëw ka euh, moom rek moom yoru ay décision boppam. làmb dafa am ñu ko sekk. dafa am ñu koy dénk. ñu ngi ciy war a waxtaan mais kago kenn mënu feex ba du ñëw incha bu ñu si aj nañ ñu mais kagul day ñëw. léegi ko décortiquer lan euh, bala ñu lay laaj ci Papa Sow ak Siteu le 5 novembre. le 6 novembre ba bëgg nga dëkkoon nu nu combat boobu Papa Sow la mooy foram sita la mooy avantage am la mooy avantage am waaw bu fekkee ne Papa avantage avantage am ci sita mooy mu nekk combat rapproche hmm, bu nekkee combat rapproche mun na ko arrangé mun na dóor gauche droite bu Siteu di fay sax mun na ko gis def song walla moo reculer cité li avantage am moom mu wàcc ba ci suuf tolloog Papa Sow daal koy jéem a jàpp bëri ak moom loolu mooy avantage maanaam nu koy dëkkati dëkkati bu yomb kii lii mooy avantage am dóor kii bi ñëw mu ji ak moom kii yot nànk ba jàpp ko doog a bëre mooy avantage am bu dee cité yot nànk ba avantage am mooy loolu. mais ja avantage na ko parce que long et doux la maanaam kii dafa gudd. Siteu bu jàppee Papa Sow na bañ a jàpp mais Papa bu jàppee Siteu mun na jàpp naa nag Papa Sow ci ni moo gisee lit on sol la koy bëree mooy soxlawul jàpp ngela ngembam soxlawul tey li mu soxla mooy mu dóor Siteu ñëw enquête su koom wala mu gis ko effacé wala mu jiw moom gis naa mu def ko contre Zos seen revanche dama yaakaar ne noonu la war a bëri noonu la bëgg a bëree bokk waaw deuxième bi mu bëreeg moog Zos may Zos di sens jékki-jékki gauche droite Zos di fay rek mu rappel ko gis nañ ko muy bëree bëree parce que mun na ko Siteu li avantage mooy muy yot Papa Sow bañ di dóor coup perdu boo xamante ne xamul fu mu jëm lu muy dóor na ko xool si rek mun na jiw ak moom mais mu jàpp ba pare doog a bëri mooy avantage am. yaa ngi booy ma. waaw loolu combat la boo xamante ne ñaar yëpp ay mbër kaamil lañ mais seen bëre yi méngoowul. méngoowul de. waaw loolu moo tax mën naa ko yemale foofu rek suñu bëre yi méngoowul. mais boo ñaan moom it dina yab Lac de moom itam saa yi taxaw de moom moom bu taxawee nag. man man boo taxawee boo ñëwee boo ñëwee yëpp baax na bëgg naa lépp. yenn saa yi moom man bëgg naa lépp garaawul yow xam nga ne man bëgg naa lépp. taxawee nga fekk ko fa. non. face Balla Gaye 2 Boy Niang le 10 octobre théâtre national Daniel Sorano mooy dalal mbëri Gaston production ne dinaa leen boole ci benn bër Balla Gaye numéro 2 jàkkaarloo ak Boy Niang mi ko newoon Balla ñun doo suñu idole Balla ni ko Boy Niang say entraîneur sax mun naa leen jàngal bëri waa Gaston production nee nañu duñu yem ci Balla Gaye ak Boy Niang kese ndax combat bi war a am le 5 mars ci diggante Sa Thiès mi nga xamante ne nii bërëtam xajul ci nit moom la Gaston Mbengue daal di jël boole ko ak rëg-rëg xale bi nga xamante ne nii bi mu duggee ba léegi musta dégg mu ñëw beneen combat bi nga xamante ne nii moo war a am le 14 janvier soq ak marde derby Pikine ak Guédiawaye dafay dekkiwaat foofu le 14 mai itamit lamb ji nga xamante ne nii moo war a dox ci diggante Franc ak Forza dinañ leen woo ñoom ñaar lundi 10 octobre ca théâtre national Daniel Sorano kaddu dem kaddu dikk mbokk yi face to face bi nag sur invitation ku ci amul sa invitation mën nga koo xaar ndax en direct ngeen koy am ci lutte tv point com ak Gaston Production